taala wa barakatuhu sëriñ bi neena mi ngi nuyu monsieur Amadou Ba di premier ministre ak mbollem delegation bi mu andal yep nak kenn ku nek ci sa tour ak ci sa sante di wax ni ñew nga ci sa keur way jur ñëw nga it ci sa kër sëriñ muy sëriñ Saalihu Touré kon day mel ne ñëw nga ci sa kërug bopp ndax ñaari cër yi foo ko am cërub way jur ak cërub kilifa foo ko am rekk foofa moom yow yaa ko moom ndax kenn dala fee ëppalewul dara kon loo lii bu amee sa diggante ak moom ci jaar-jaar yi ak ànd bu rafet bi nga ñëwaat tey jii nag na nga xam ni day sedd na mboolem xolub njaboot gépp ak mboolem taalibi yépp nag muy jëmm joo xame nit da ngeen a bokk lépp ngeen bokk diine ji bokk islaam ji bokk yit réew mi ndax sëriñ Saalihu Ture yemul woon rek ci julli ak woor ak jàng alxuraan waaye fi leen réew mi toll fi leen réew mi toll ci bëgg jàmm ci bëgg réew mi defaru moom de yaakaar naa ni weesu woon na ko ndax lépp loo xamante ni bu solee dàllam jàmm am lu rafet am def na ko bu dee loola kàddu la ci war a yëkkati ngir loola mën a am kàddoom it jug na ca bu dee ak ñaan dugg sa roq tàllal loxo sa borom bu fekkee tamit tamit loole mooy tax jàmm am loolu it def na ko kon réew mi lu ne la ko réew mi mas a jaral ku fe nekk it ànd na ak yow ci defar googee muy président Abdou Diouf muy président Abdoulaye Wade ba ci président nag Macky sàll mii mi nga xamante nii nag seen diggante ñoom ñaar diggante bu sore sore sore sori la weesu na lii lépp am na nag ñun luñ ci xam waaye am na sax loo xamante ni ñun xamuñu ko ca ndax diggante ba dafa yàgg te it xóot na lool waaye nag ñaar yi nga xamante ni mën nañ ko cee jàpp ku ne xam na ni sëriñ Saalihu ture ci yéeneem ju rafet gum ko yéene woon defe naa ni cër bii mu am tey muy président de la république gis-gis booba kenn mësu caa jiitu nag Serigne Saliou Touré ndax ba nga ko koy wax de ca ñaanuk way juram muy bi fi way juram wu jigéen bàyyi ko ba mu fa demee ba mu demee ne ko kii tiim de ne ko fii ma taxaw nii de lañ ma xamale ni ma ne ma yow mii di doomam de di nga ma san yilif réew mii di muy doon président de république kon loola benn la ca nee na ba ca tege it bi mu wéradee ñu war koo yóbbu Maroc président day moo def lépp ànd nag ak Serigne Assane Gadiaga ak beneen wëllëreem gu nekk ca Mbuur ñu koy wax Baye Ibrahima Fall mu jël lépp nag tegoon ko ca loxo Babacar Touré daal na ko nag nanga nga fexe ba lépp na jaar yoon te jag lépp tamit Babacar def ko ni ko ko président digale woon ñu dem ca jàmm dellu siwaat nag ci jàmm bañ ca am ca lañ ca bëggoon walla boog ñu am ca lu kawe njort kon loolu mooy li ñu ci xam waaye nag man li ma wóor seen diggante li ci nit ñi xam liñ ci xamut moo ko ëpp foofu loola nag nee nag moo sax continué nag ba waral jotaay bi ndax sa wayjur kat du àgg du bëgg am mbir yow nga ñëw ni da ngay bañ loola bu du jox mbirit bopp nga ñëw ni da ngay wan loola gannaaw du fonk it am mbir nga ñëw ni duma ko fonk kon yaa ngay mooy sa wayjur kon nag tànk yi ñu fasanteeg yéen mooy lépp lu ngeen nekk ñu ànd ceeg yéen ndax li waral loola dañoo xam ni amut lenn loo xamante ni di ngeen ca xëy di ca gont te du njariñul réew mi nag du njariñul askan wi te loolu nag ak jaamu yàlla la damaa mas dégg ci Serigne Sadou Touré mu ne mu ne topp buur lu war la ndax nee na loolu sax ab addis la waaye ba mu koy wax loola lu yàgg la ndax booba xam naa ni booba daal am na lu xewoon ba mu jàpp ni bañ jàpp ni dafa àndul ak ñi nekk mu ne leen déedéet man day képp ku fi yàlla teg ànd na ma ak moom daal di teg nag kàddu googa daal na topp buur nag dafay lu war kon nag képp koo xamante ni suñ borom jiital na ko nee na amoo lenn loo xamante ni lu la war lu dul topp leen ànd ak ñoom jàppale leen waaye nag bu loolu wéyee dafa am loo xamante ni nit da koo bëgg nit doomu aadama da koo bëgg amul lu ko gënal di gis nag kilifaam loolu moom képp kum doon rek ci sa biir xol ndax boo gisee tey jii bu ngeen dee ñëw ñëpp màbb fi na nit dugg fa gis leen rek la bëgg waaye amut lu muy sàkk ca loola ndax gis kilifa moom dafa neex kon loolu it day mel ni gis ko rek wala nga dégg ko loolu lépp dafa neex ndax yonente yàlla Muusa nee na bi ko suñ borom ne loo ci sa loxo dañu ko lii day aw yat la ñu ne ko ci laay xàdd jur gi de xàjjee jur gi ma yore am naa ci yemit yeneen i soxla waaye boobu bëggul woon a dagg waxtaan ndax wax gi ngay wax ak sa kilifa dafa neex mënoon na ko rek aw yat laa yore waaye yëmut ca loola kon nag gis sa kilifa ak di wax ak moom dara dàqu ko kon nag kon nag monsieur le premier ministre ñoo ngi am mbégte ak kontaante jàkkoor bi nga xam ne jàkkoor lañu ko ak seen jëmm yi defar kàddu yu baax a baax di leen seereel bu wér a ni lu ngeen nekk rek ñoo ngi ca loolee li may paral di wax daal rawatina nag ci ñëpp waaye ne mu ne ngeen doolee rafet njortu nag ci suñu jëmm yi bu baax ndax fii réew mi toll lu nekk bu njortu bu rafet amut rek lu mel lu bëri rek mën naa am am ay gàllankoor waaye njortu bu rafet rek moo yor lépp kon kër gépp ñu ngi lay maase wax ni la na ngeen rafet njort ci kër Serigne Saliou Touré ak mboolem ci njaboot gi yëpp ak mboolem taalib yëpp di yóbbante nag nuyo ci président nag de la république ndax bi lii xewee njëkk naa yónni délégation bu mag muy muy ministre Augustin ministre Augustin ak ak gouverneur ak ñoom moom docteur Ndiaye ak ñu daal di am def délégation daal di ca ca ca altine ba ca ñettelu fan ba waye loolu dafa melni ne na sëkk waaye ca gamu ga nak mu daldi ñewalat bopam mom president and ak mbooloo ma ñu sant bu baax diko gëreem di nan yalla mu def ci rewmi jamm lepp lépp lo xamanteni ni mi ngi koy sakku ci rewmi ak liggey bi mi liggey askan wi suñ borom may ko ci ndam lo xam ndam lo xamanteni nak ñepp da nañ ci tek seen bët nan li da mo doon kàddu yi ñi ngi sant ñepp di kanam ñëpp jërë ngeen jëf nee na nag di la gën a dénkaat nag suñu waa ji nga doon wax léegi nee na ni ñu leen koy dénkee nee na ni ngeen ñu ko denkee ñu nit jëlaat nañ ko dénkaat leen ko bu baax a baax a baax ndax kenn la day ci kër gi Serigne si Sylla mii ak Serigne Saliou Touré bañ na ko ba dañ na ko yow mii day yaay taawu Serigne Saliou Touré ndax moom ak waajuram wu jigéen moog sëriñ Saliou Touré duñu ñaar sëñ bi jug na fii ba tàyyi dem dem seeti way juram loola nag moo rogalaat ba ci jëmmam ji mu jàpp sëriñ bi jàpp kër gi sëriñ bi jàpp ko lool yéene ko lu nekk ba ci lu bëree bëree ba laataa moo ñëwit moom mii sëriñ bi wax na ko boppam na ko boo jaaree fii defee nii di nga jot ci lii waaye ba mu ca jotee waaye boo jotee na nga ko téye kon moog sëñ bi jaar-jaar yu bëree bëree bëri la ñu am kon nag fekk nga taawu sëriñ bi ci kër sëriñ bi muy sëriñ taale Sylla jërë ngeen jërë ngeen jëf lay doxee Sénégal noonu la bindoo ndax fii mu nekk nii bari na ñu bari ñu nekk ci ñun li leen yitteel la leen yitteel mooy ni réew mi di doxee ci sunu ngëm-ngëm ba tax ñu nekk ci jàmm ba waxtu wi ba tax réew mi am barke ba tax Sénégal yegg foo xam ne dooleem yeggul fa am na ñu bari ñoo xam ne xëy na dañu ciy ñee am na ñu bari ñoo xam ne na dañ leen ciy ñee wala boog li am fi am neexu leen boog li fi am lislaam neexu leen yeneen gis-gis la ñu yor yeneen gis-gis la ñu yor boo xam ne buñ la ko wanee boo xam ne peinture ba day rafet lool peinture ba day rafet lool neex a dégg neex a dégg waaye boo xoosee tuuti waaye boo xoosee tuuti musiba la musiba la te yooyu teg nañ ci baaraam te yooyu teg nañ ci baaraam gis nañ ko fépp gis nañ ko fépp ci li ñu wër ci li ñu wër loolu yëpp nag mi ngi fi loolu yëpp nag mi ngi fi loolu tax ñuy xoolaat bu baax loolu tax ñuy xoolaat bu baax waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen yéene bi daal yéene bi daal mën nañ ko tënk ci ñaari baat mën nañ ko tënk ci ñaari baat mooy ñaan yàlla jàmm ju mot wërsëg. ñaan yàlla liggéey buy andi barke ak wërsëg ci ñaan yàlla liggéey buy andi barke ak wërsëg ci réew mi. bu amee it bu amee it nu bokk ko. muy lu ñuy wax prospérité partagée. muy lu ñuy wax prospérité partagée. lépp lu ñu am rek. lépp lu ñu am rek. nañ ko bokk nañ ko bokk. ndax ñàkk bokk. ndax ñàkk bokk. wala ñàkk wax li nga wala ñàkk li nga am. dina andi réeróo yu bari dana indi réeróo yu bari. loolu dañ koy dégg lu bari. léegi dañ koy dégg lu bari. balaa élection dañ koy bokk. bu élection passée dañ koy bokk. kenn benn sénégalais. benn sénégalais ëppalewul beneen sénégalais ëppalewul beneen sénégalais ci réew mi. kon li ñu war a ñaan. kon li ñu war a ñaan. bu ñu ñëwee ci kër yu mel nii. bu ñu ñëwee ci kër gu mel nii. dañoo war a ñaan jàmm ju mat sëkk. dañoo war a ñaan jàmm ju mat sëkk. bu ngeen déglu seetloo sama waxtaan. ne bu ngeen dégloo waxtaanam. la may faral di wax. la may faral di wax. donte yàlla defal na jàmm Sénégal. ku donte yàlla defal na jàmm Sénégal. waaye jàmm du doy. dañuy ñaan rek jàmm jàmm ju mat sëkk xam naa taala ko gën a dégg wolof taala daal jàmm ju mat sëkk la premier ministre di ñaan ndax jàmm ju mat sëkk kat ca la lépp xat ci élection yi nag ñu ñu jëm ne élection yi ñu jëm nag yàlla yi dafa dogal ne parti bi mu yor président de la république def ko candidat wu parti bi mu yor muy responsabilité lu mel ni nag bu la dalee. lu mel ni nag bu la dalee. du ñu bari dañuy yàkkamti. gaawantu. di bind di bind. di wax dinaa def nii. wala dinaa dugg ci lii. loolu gis. ku xam tuuti ni réew di doxee. nee ku xam tuuti nag ni mu réew di doxee. ku xam tuuti fi adduna bi toll. ku xam tuuti fi adduna bi toll. responsabilité bu mel ni bu dalee ci yow. responsabilité bu mel ni bu dalee ci yow. da nga war a ne teg da ngaa war ni teg. dem seeti kilifa yi dem seeti kilifa yi. waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom. doog a ñëwaat nag doog a ñëwaat nag. jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan wi. incha allah la nga xam ne wax nañ leen ko. la nga xam ne wax nañ leen ko. danañ ko def. daanu ko def. ndax li ci ëpp nag. ndax li ci ëpp nag. fekkoon nañu xayma ko ba. fekkoon nañu xayma ko ba noppi. nee naa leen. ba nee naa leen. nañ koy defee. nañ koy defee. ñaataa koy def. ak ñaataa koy def. kañ lañ koy def. ak kañ lañ koy def. lu ci nekk lu ci ne. bind nañ ko teg bind nañ ko teg. loolu nag daf may dugal ci beneen anam. loolu nag da koy dugal ci beneen anam boo xam daf ñu andi fii. daf ñoo indi fii. ndax dañoo jublu ci élection. ndax dañoo jublu ci élection. li ñuy njëkk a ñaan ci élection. li ñuy njëkk a ñaan ci élection mooy jàmm mooy jàmm. ñoom wax nañu li leen neex. wax nañu li neex. wax nañu li ñu buñ li nga xam ne bëggoon nañu defal leen. wax nañu li ñu bëggoon ñu defal leen ko. loolu yëpp yu rafet la. loolu yëpp lu la. def waxtaan ak ñoom. waxtaan ak ñoom. waxtaan wu gudd. ndax ñoom ñëpp dañ leen waroon a déglu moo xam baykat la moo xam baykat la moo xam tailleur la moo xam tailleur la moo xam ku nekk ci ay carrière moo ko nekk ay carrière la xam kuy napp la moo xam kuy napp mën nañu wax lépp lu nekk seen mën nañu wax lépp daal lu ne fii ci biir kees daje nañoo ak ñoom démb waxtaan ak ñoom kon ñuy sant yàlla bu baax. kon ñuy sant yàlla bu baax. gis ne am na ay jéego yu bari. gis ne am na ay jéego yu bari yu ñuy dox. xam nañ nag des na. xam nañ nag des na. lii nga xam ne jot des na. lii nga xam ne nag des na. incha allah incha allah. gouvernement bi wax na leen fi mu ci toll. gouvernement bi wax na leen fi mu ci toll. la nga xam ni ñu ngi koy def. la nga xam ni ñu ngi koy def. mooy li ñuy président Macky Sall sant. mooy li ñu président Macky Sall sant. wax leen lu ngeen mën. wax leen lu ngeen mën. wax leen loo xam ne nar ngeen. wax leen loo xam ne nar ngeen ko. loolu dafa doon lu jaadu. loolu dafa doon lu jaadu. bu leen waaye bu leen méttee it nañ ko jéem a saafara nañ ko jéem a saafara wax leen la ñu bëggoon a def wax leen la ñu bëggoon a def mën nga am yéene ndax man nga am yéene mu yéene bu rafet mu yéene bu rafet na koy defee na nga koy defee naqari ka nga koy defal naqari ka nga koy defal dafa laaj na ngeen toog waxtaan dafa laaj na ngeen toog waxtaan loolu mooy li ñu fi mooy li ñu fi indi moo tax démb sunu ndaje bi moo tax démb ndaje mi guddee ndax ba ñuy def ndaje bi ndax ba ñuy def ndaje bi

ñu ciy sant sunu borom ñu ciy sant borom bu baax. ndax lan fa gis. ndax lan fa gis ay kilifa lañu. ay kilifa lañu. joxuñu ci kenn dépense joxuñu ci kenn dépense ba muy ñëw. ëpp ci ñoom. waaye lépp ci ñoom. dëgg dëgg am nañu yaakaar. dëgg xam na ni mu jàppale président. xam naa fi mu ko féete. xam naa fi mu ko féete. mu di ko def nag ci dëgg. mu di ko def nag ci dëgg. di ko def ci engagement. ko def ci engagement. kon ñu ngi koy sant. di ko gërëm bu baax a baax di leen ko dollee dénk di ñaan yéen it ngeen ngeen dolli ñu koo dénk ndax ku nekk ci ñun am na wàll ci moom am na wàll ci moom kon dañ koy dañuy dénk dénkante rek kon dañuy dénkante rek daal ku la a seedal daal taal si la ku baax la dañ fi ñëwoon nag démb ci liggéey ne dañ fi ñëwoon nag démb ci liggéey bi nag gouverneur moo koy organiser ñu ngi jógee nii ci marché poisson bi mooy fi nga xam ne dañ koy defar mooy fi nga xam ne dañ koy defar. pour jay jeun pour jay jeun ak yu mel non marché la daal. marché la daal. am yenen santé yu fi président Macky Sall. am yenen santé yu fi président Macky Sall yëkëti won mu waxon ni ñëw xoolal ko chantier yi. xool it waxtaan ak population waxtaan ak population bi. xool seen bëgg-bëgg. xool seen bëgg-bëgg. ndax dëppoo naag li ñuy def. ndax dëppoo naag li ñuy def. ndax ko defé amul loo xam mën na leen ci métti. amul lo xamni mën na leen ci métti. bu leen neexee it. ba bu leen neexee it. nañ ko wax. fi mu tok fi mu tok di. dëkk ci kër gi. dëkk ci kër gi. bokk ci kër gi. bokk ci kër gi. bokk Cees. bokk Cees. muy nag doomu Sénégal bu ñu ràññee. nee Talla Sylla di doomu Sénégal bu ñu ràññee. yàgg na yàgg na. fii ay atam tollu tey. fii ay atam tollu tey. jëfam ëpp na ko. nee jëfam ëpp na ko. ndax maase naag ñu bari. ndax maase naag ñu bari. ñu bari mag ko. ñu bari mag ko. waaye bi ñu tàmbalee dégg Talla si waaye bi tàmbalee dégg Talla Sylla. muy liggéeyal réew mi muy liggéey réew mi. di liggéeyal askan wi. di liggéeyal askan wi. di di def lu baax li muy def. di def lu baax li muy def. nga d'accord ak moom wala nga bañ a d'accord ak moom nga d'accord ak moom wala nga bañ a d'accord ak moom. loolu yàgg na loolu yàgg na. ba xam ne nit tey bu gisee Talla Sylla ba xam nit tey bu gisee Talla Sylla mën na foog ni am na juróom-ñeent fukki at mën na foog Talla Sylla am na juróom-ñeent fukki at bañ ko commencé dégg ak ndax bañ ko commencé dégg ak léegi ak léegi nii yàgg na kon Talla bu ñu ko fekkee ci kon Talla bu ñu ko fekkee ci kër gi dañ koy beral nuyoo dañ koy beral nuyoo mais li am ci kër gi am ci daara ji am ci daara ji ne moom teg na ci bëtam lu yàgg a yàgg xam na li fi xew bu yàgg a yàgg kon am na loo xamante ni nañ ko waxtaane waat xool nu ñuy jàppalantee jàppale la ndax jàppale la jàppale waa Kees jàppale waa Kees gépp la jàppale la jàppale diini jépp jàppale diini jëpp la jàppale Sénégal gépp la may sant nag Talla Sylla nee muy sant nag Talla Sylla muy kenn ci ñun nee Talla day kenn ci ñoom xam ne liggéey na ba la nga xam ne liggéey na ko teg ci sunu bët ñu teg ci sunu bët ñëpp seede ko ñëpp seede ko munul demee neneen munul demee neneen loolu lañ jàpp nun loolu lañ jàpp ñu gisit taxawaay bi nga taxaw yow bi bi mu wàccee liggéey ba tey. ñu gisit sëriñ Cheikh taxawaay bi nga taxaw bi sëriñ bi wàccee liggéey ba léegi. gis nañ sax nga tàmbali ko balaa boobu. gis nañ sax kat tàmbali nga ko kat balaa booba. mu la ci loolu. nee sëriñ bi tàggat la ci loolu. nga xamal ni. di la xamal ni. ñun ñoo nekk ci loola. ñun ñoo nekk ca loola. ñun ñoo koy bokk. ñun ñoo koy bokk. dinañ ci def lu ñu mën. daañ ci def lu ñu mën. dinañ waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan. daañ ci waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal ñëpp. daañ ci jëf ñu ci war a jëf lépp di la sant nak bu baax di la sant nak bu baax baax. ndax def lo xamne ne ko bëgg. ndax def lo xamne ne ko bëgg. wala def lo xamne ne da nga ci tek sa bët. wala def lo xamne ne da nga cee teg sa bët. dafa yomb dafa ci ba nit ci ba nit fi. rek la rek la def. surtout bu ko ci biir xolam. surtout bu ko ci biir xolam. am am daf ko def amewul ko kooku def ciy jéglu kër gi nag di bég lool di fi ñëw kër gi mu bég lool di fi ñëw ndax Serigne Saliou Touré dafa njaboote woon Thiès yëpp. nee Serigne Saliou Touré dafa njaboote woon Thiès yëpp. mën naa wax sax nee mën naa dafa njaboote woon Sénégal yëpp. ndax na ñun ñu xamoon ko bu baax. nee yàlla dogal na moom xamoon na ko bu baax. ndax liggéey na fii ci Thiès. ndax liggéey na fii ci Thiès. am naa fii sama soxna fii la jógee. nee soxnaam fii la jóge ci kees fii rek ci àngal sëñ Fallou. fii rek ci àngal sëñ Fallou. kon xam naa boor bi mu. nee kon xam na boor mu ñëw ban la. xam naa kër gi bu baax. nee xam na kër gi bu baax. xam nañ daara ji bu baax a baax. Serigne Saliou Touré nag kenn la woon ci biir Thiès. nee Serigne Saliou Touré nag kenn la woon ci biir Thiès. ndax daana diggaaleeg ñu bari. nee sëñ bi daana diggaaleeg ñu bari. daana wax ak ñu bari. daana wax ak ñu bari. daana jëflanteeg ñu bari. daana jëflanteeg ñu bari. lépp ci sutura. lépp ci sutura. man de fekk na ma impôt lu dul benn. nee fekk na ko impôt lu dul benn du ñaar. waye musuma wax lo xamni ci mom la jëm. waye musuko wax lo xamni ci mom la jëm. tay ji mo nek ci deug tay mo nekk ci dëgg. ñu nekk fii. ñun ñoo nekk kon la doon def yëpp. wax lépp. askan wi la ko doon waxal. askan wi la ko doon waxal. doon li muy liggéeyal Serigne Touba. di liggéeyal Serigne Touba. ñëw bi mu wàccee liggéey nag ñëwoon na fi ànd ak président. ne bi wàccee liggéey nag ñëwoon na fi ànd ak président. président di di jaale. ne président di jaale. waaye day doon dafa doon koo xam ni dañ koy jooy te noppeeguñu. waaye dafa doon koo xam ne kii Serigne Saliou dañ koy jooy te noppeeguñu. dañuy yeesalaat njaal moomu. kon day yeesalaat njaal moomu. di ñaan di ñaan. ci barkeem ci barkeem. yàlla defal ñu sutura. yàlla defal ñu sutura. defal ñu jàmm defal ñu jàmm. def ko ci réew mi yëpp def ko ci réew mi yëpp. yàlla xare ko ci àjjana yi. yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawe. donte nag amuñu ñun sikki sàkk. ne donte moom amuñu sikki sàkk. waaye nag ay jaam lañu. waaye nag ay jaam lañu. bu ñu duggee nag ci nu yàlla. bu ñu duggee nag ci domaine yàlla. donte mën nañu am yàqin. donte mën nañu am yàqin. dañ koy bàyyi pouvoiram. dañ koy bàyyi pouvoiram.